bu baax a baax ci taxawam eh, ci loxo ak liggéey bi nga xam ne mu ngi ko def ci réew mi surtout nag ci programme bi nga xam ñu ni neen la wax ay certificat médaille yu baree bari yëpp team bi yëpp la jox kon jaartees ñu ngi ko gërëm bu baax a baax a baax di ko ñaanal yàlla yàggal ko fi fi mu bëgg a yóbbu réew mi yàlla jàppale ko ba réew mi àgg fa bëggoon naa teew waaye ni ko Alaaji Sëriñ waxee rek ki too bi lañ nekk too bi jeexagul des na ay fan moo tax suñ directeur mënut a ñëw ebal délégation boobu waaye moom mu ñëw ak mu ñàkk a ñëw yëpp xelam a ngi fi. loolu nag ñàkk a ñëw wi ñoom ñëpp ñu ngi ciy liggéey looloo tax waaye nag yoon du am ci benn ñu ngi koo ñaanal bu loxoom ganee fiix tuuti xañ na suñu yeneen màggali naka lañ ko Silver Jubilee boobu mooy ñaataat. ñaar fukkat ak juróom yàlla nañ ko fekkee mu teewee ko kon mbokk yi ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax a baax rawatina ñi nga xam ne taxaw nañ programme bi rawatina ñi nga xam ne ñu ngi dundee programme bi ak ñi nga xam ne tuddee nañ seen bopp programme bi ñu ngi leen di gërëm bu baax ngir mi ñun ñëpp a ko bokk suñu xool sedd na ndax woote ñu wuyu si la lu neex la ñu ngay gërëm itam ñi nga xam ne ñooy suñu resource persons eh, def fi waxtaan ni ñi xam nañ ne jot amut te koo woo am loo ko sas foog mu am gëstu bu mu def kon ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax di gërëm nag suma toom muy alxaaji sëñ Sekka ndax play bi ñu fi def moom moo ñu baaxee ñu def ko ndax su noonu buñ ko def kenn du ko def ndax alalam la waaye li ma wax mooy dafa doon nit koo xam ne ku tabe la ci xam-xam ku ñu ngi ko gërëm bu baax di gërëm itam waa Rakkaaju li ñu xari rek mooy ca tàkku tàkkusaan lañ bëggoon hôtel bi yëpp Rakkaaju balaa nit ñi ñëw waaye li ngeen fi def itam neex na yéen a ñu fental suñ sigi bi muy woy wi nga xam ne moom la ñu ni neen la di bàkkoo kon ñu ngi leen di gërëm ci loolu bu baax di gërëm ñoom Jaliba wuy ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo fi nekk yëpp kon yéen ñëpp ñu ngi leen di gërëm bu baax di xasal nag ngir mande eh, suñu nijaay muy alxaaji Aliou Diop eh, mag la waaye ba mu ñëwee ba tey mu ngi ñun fii am liggéey yu bari yu ñu fi defal di ñu xelal di ñu wéttali jamono yi ci nekk di wax lu baax ci programme bi kon ñu ngi koo ñaanal yal na ko fi yàlla yàggal ñaar ñii nag. foog ñu gërëm leen ndax li tax ma ne foog ñu gërëm leen mooy léeg-léeg programme am ñoom ñaar ngaa gis bari na kon loolu lim laa woon mooy ñu sawar ñu farlu ñu fonk programme bi la ak luñ xat xat xat xat xat Aïda Diop ak ay Babacar foog ñoom ñu teew kon ñu ngi leen di gërëm di sàkku fu waay nekk tey seetaan te sopp programme bi nga defal leen ñaan ndax seen yéene yëpp mooy lu defar askan wi mooy lu defal mbokk gi mooy lu defal sëy yi mooy lu defar njaboot gi te yaakaar naa loolu moo war a nekk suñu itte ñun ñëpp kon yal na leen fi yàlla yàggal yéen ñëw itam ñu ngi leen di gërëm Mister Seck kontaan nañ ci yow bu baax a baax a baax a baax ndax woote bi diir bu gàtta la mu jaral la jóg ba fii ñëw defal ñu Seex Tijaan boobu nga xam ne ñu ngi ko mandargale alxaaji baabu ñu ngi laa gërëm kon bokkay lii mooy li nga xam ne moom la fi ñu ñaan yàlla mais ñu fekkee beneen yoon incha allah bugga nañ mu gën a romba lii maam a Jéy waaw moom nag eh, foog mu ñu xaasal ko ngir mànde moom ne ko mas te nam ko def nam ko waxee noonu la ko defee yemul foofu rek sax ndax pour siiwal programme bi liggéey na ci bu baax a baax a baax a baax liggéey bu rafet gis ngeen tam profil si nga xam ne moom lañ def loolu itam moom lañ ko jox bàyyee ko ko muy dugg ci ruxa yi di nafar di def bilifin ba yëpp sotti te itam mu ñëw ànd ak ñun ci lii bu ñu yàlla dimbalee nag gis na ni ñu ko defee ren su dewee déwénee nag ñun dañoo sanse rekk toog ci gannaaw bàyyi ko mbir mi yëpp yal na ko yàlla def kon ñu ngee gërëm ñëpp jërë ngeen jëf seetaan ñu ni neen la kon nag ñu ni neen fii si GRTS ajuma bu nekk suy juróom-ñetti waxtu tegee ak genn waal ñu bamtuwaat ko dimaas ñaari waxtu ci bëccëg kon nag bu kenn uute